bu ne la ci àdduna bi am na candidat bu ñuy éliminé ndax lan diffamation te ñëpp xam na ne diffamation amu ci. waaye ak ci jaay doole ci la ñu ñëwee indil ñu déjà ñaari Mame Mbaye Niang d'abord Mame Mbaye Niang ministre ak Mame Mbaye bu dul ministre ci benn dossier vice de procédure yu dul jeex ngeen gis ne tamit euh, ñoom. procureur gaawantu woon nañu déposé appel te délai de délai bi Ousmane Sonko amoon pour déposer recours am yi 30 jours yi sax matagul woon yooyu yëpp c'était pour jéem a gaawtu am benn condamnation bu ko mën a éliminer ndax ginnaaw bi ñu ko daanee deux mois ñu xam ne deux mois mënu ko tere bokk li ñu gis mooy dañu gaawtu jéem a am benn euh, ci loo xam ne dañ ne woon dafa bëgg ragg deram yaakaar naa ne loolu doyoon na bu dee ragg der waaye bi yoon li ñu gis mooy à chaque fois état dina ci dugg avec les mêmes avocats des mêmes dossiers juste pour obtenir benn condamnation mais ñu jàpp ne loolu yëpp dañu sonal seen bopp